bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu ala seyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim euh, qabla kulli cheyin damay ndokkeel sama bopp di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru yonantu sallallahu alayhi wa sallam weeru sang bi nga xam ne bu dul moom yàlla du amal dara sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan sama borom mu booleel ñu mboolem xeeti leer ak yiw yine ci weer wi te yooyu rek a ci ne jafal ñu leer yooyu ak yiw yooyu ci suñu biir ak ci suñu biti ci àdduna ak ci àlaxira di weer woo xam ne nag su jotee ku nekk ci ñun war na góorgóorlu lu mën delluwaat ci siiratu seydina nabi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ci jàngaleem yu rafet yi kaar ngir ñu mën ko gën a xam gën koo mën a roy sidna cheikh ahmed tijaani radiallahu anhu daf daa dénkaane bu weer wi jotee ñuy jàng hamza hamziya bu imam busiri ni ko boroom rafoon niqaab waxe sidi cheikh sukayrij rahmatullah alayhi wa radiya anhu moom ci boppam gàmmu ñëwaan bañ jàng hamziya bi dañ cay boole burdatul madih xam na lool mooy rogaat di rogaat ba aksi Sénégal ndax hamziya ak burda yëpp ci yonantu lay wax sallallahu alayhi wa sallam donte hamziya moo gën a détaillé waaye Bourde beneen affaire bu mu àndal moom tamit euh, Cheikh Tijani radiallahu anhu def na sharxa bu rëy bu yàllahe ci Hamziya kon nag ñu leen ci ndokkeel ni ko mag mu baax waxee ca Sénégal Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu ne sururun fi sururin fi sururin wa iidun duna ayaadil uyuuni newe gàmmu bés bi mbégte la nekk ci weeru mbégte nekk ci atum mbégte mu mel ni kon at mi yëpp gàmmu la weer woowu su dikaan ku mel ni alxaaji ibrahima ñes qaddasallahu sirrahu dafa daan wax ne sama weer agsi na ndokkel boppam hani li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalum bada linnadirina jamaluhu loolu ngay fekk ci këru diine yi ca Tiwaawan yi ca Kawlax ci waa kër maam alxaji abdallah waa kër cheikh mohamadul ca Sokone ca Daaru Salaam ca Jaamaan ca Njaasaan ca Ceneba fu ne ca Fuuta waa kër Abbas Sall ku nekk ci ñoom bind ci yonentu sallallahu loo xam ne xapp ak lakk jeexalu ko naka noonu ca alamul islam bi yëpp yàlla bu ñu yàlla xañ leer yonentu bi sallallahu alayhi wa comme nag yonentu sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne des ma yónni pour ma jàngale kon jàngale mi dafa war a gën a yaatu waaye warta fomm waa defee li gën ci li ñuy jàng ak di ko jàngale nag mooy alquranul karim te téere bi ñu soobu moo ñuy jàngal di ñuy jàngee alquraanul karim ca na ko yàlla wàcce woon ci yonantu sallallahu alayhi suñu bind bi weesu jàngoon nañu sifaatul xuruuf ñu waxoon ne sifa mooy lu taxawee dara ci maana moo xam maana mu aju ci yëg la wala mu aju ci biir bu dee maanaam mu aju ci yëg mooy lu mel ni weex kii dafa weex kii dafa ñuul kii dafa njool kii dafa gàtt bu dee maanaam mu aju ci biir mooy lu mel ni xam-xam melaw biti dañ koy gis melaw biir mooy lu mel ni xam-xam ak yooyu le waaye buñ ne sifa ci xaraf nag mooy melo wi koy gaar saa yoo ko waree tudd ca maxrajam ci génn waayam képp kuy jàngal Alquran nag sa matum jàng ak sa rafetaayu jàng mu ngi dépendre rek ci bi nga xamee xaraf bi xam maxraj bi xam sifa bi nga sàmm wante ak moom mi ngi mel ni par exemple or dafa am vingt quatre carats am vingt et am dix huit am quatorze ba ca gën a kawe mooy vingt quatre carats mooy woor bi gën a vingt quatre carats xam ngeen ne vingt et un suufe na ko naka noonu ba quatorze cas booy jàng alquran nag nga fexe ba respecté sifaat yépp sa njàng mu ngi mel ni bu doon or la yegg na ci dayob vingt quatre carats noo gën a manqué lëf ci sifaat yi sam njàng gën a manqué valeur ni nga xame ne or nu mu gën a suufee vingt quatre carats gën suufee ci valeur borom téere bi waxoon ñu ne sifaat yi fukk lañ ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yooyu nag ñaari xaaj lañ daf ci am yoo xam ne dañu am safaan am yoo xam ne amuñu safaan yi am safaan ñooy fukk juróom ak seeni safaan ñooy fukk yi amul safaan ñooy juróom ñaar yi nga xam ne dañoo am safaan muy sifaatul jahr ak rixaawa ak istifaala ak infitaax ak ismaat seeni safaan والهمس هي شدته وهي استعلاؤه mooy itbaaqu mooy itlaaq hams mooy safaanu jahar shiddatu mooy safaanu rixaawa seen diggante bayniya nekk fa safaanu istifaal itbaaq mooy safaanu infitaax itlaaq mooy safaanu ismaat ñu waxoon ne hams ci luxa mooy ak nëbb su dee ci xam-xamu wit nag mooy noyyi gi daw gi muy daw jamono ji ngay tudd xaraf bi ngir lompañu sukkandiku gi xaraf di sukkandiku ci maxraj bi ci genn waayam ci point d'articulation hams mooy nooyi gi daw gi muy daw sooy tudd xaraf bi ngir febles lompañu dégg nga sukkandiku gi xaraf bi di sukkandiku ci maxraj ay xarafam borom téere bi wax nañu ne mooy ñooy faxathahu shaxsun sakat fa xa tha ha shin xa sod E, siin kaaf ak taa yi ñooy xuruf alhams safaanu hams mooy jahr jahr ci luga mooy iclaan rek mooy feeñal mooy wax ca kaw wala def ca kaw wax ca kaw feeñal mooy jahr ci xam-xamu taj wi nag mooy nooyi gi tëju gi muy tëju sooy tudd xaraf wi ngir kàttanu sukkandiku gi xaraf wi sukkandiku ci point de yi ci maxraj bi mooy safaanu hams ay xarafu hams ñooy faxatahu shaxsun sakat xarafu jahar mooy li des ci xarafi alphabet yi yépp boo ci génnee boo génnee ci ñoom hams la des yépp mooy ñooy xarafi ñooy xarafi jaxar fa xasahu shaxsun sakat su génnee la ca des rek mooy jaxar jaxar ak hams loolooy ñaari njëkk yi ñetteel ak ñeenteel ñu waxoon ne ñooy shiddatu dégg nga ak rixaawatu seen diggante bay niyatu nekk fa shiddatu mooy kattan mooy tat ci làkk ci làkku yaaram bu dee ci xam-xamu wit nag mooy tëju gi baat bi di tëju sooy tudd xaraf wi ngir kàttanu am doole sukkandiku gi dégg nga xaraf wi sukkandiku ci maxraj bi xarafi shiddatu ñooy ajid qatin bakkat hamza jim daal qaaf ta ba kaaf ta mooy safaanu shiddatu rixaawa ci làkku yaram mooy nooy al liin softness waaye ci xam-xamu tajwid mooy daw gi baat bi di daw sooy tudd xaraf wi ngir lompañu sukkandiku gëmu sukkandiku moom xaraf wi ci maxraj wi xaraf wi rixaawatu ñooy li des ci xarafi alphabet yi yëpp gannaaw buñ génnee xarafu shidda ajit qatin bakkat ak gannaaw buñ génnee xarafu bayniya mooy xaraf yi nekk ci diggante shidda ak rixaawa te ñooy laam nuun ayn mim ra bayniya ci luga mooy ak yemoo ictidaal ci xam-xamu tajwid bu ñu xaraf xarafu bayniya la mooy booy tudd xaraf yi sa baat du tëju mooy sa euh, voix du tëju ni muy tëjoo ci xarafu shidda waaye du daw tamit ni muy dawee ci xarafu rixaaw ñu waxoon ne boo bëggee bañ a jaawale diggante hamza ak jahar ak shiddatu raxaawa ak rixaawa da xam ne hams ak jahar saa ñu leen tuddee nooyi la nooyi guy daw wala mu bañ a daw shiddatu ak rixaawa saa yu ñu leen tuddee voix la baat bi la hmm? seen diggante lan moo ca nekk bayni bayniya hmm? shiddatu saa yoo ko bëgg a tudd baatu shiddat xarfu shidda da ngay yëg benn gêne ci dégg nga fi nga koy tuddee gene boobu nag doo ko yëg sooy tudd xarafu rixaawa sooy tudd xarafu rixaawa bu ko defee gene boobu ngay yëg dafa am yuy tax gene bi deñ mooy ñu jël hams boole ko ci def ko ci kaaf jël qalqala def ko ci xaraf yi ci def ñuy xutbu jëdd hmm? booy def hams nag boo booy jàng baati shiddatu yi wala xarfu shiddatu yi bul focus ci hams bi focusal ci eh, shiddatu bi maanaam fo bul bul focus ci air bi génn pour mu woyof waaye fo focusal ci dëgëraay bi boo focusé ci dëgëraay bi rek air bi dafay génn dégg nga euh, dafay génne boppam moo tax imam Jazari danañu wax ca kanam ne waraa shiddatan bi kaafin wa bitaa dégg nga xams boobu nga xam ne mooy nekk ci kaaf ak taa ci xarafu euh, shidda yi na nga veeye ci shiddatu bi ndax xams bi day ñëw naturellement bu dee xaraf yi ca des nag qalqala mooy moo leen di woyofal lu dul ali lu dul Hamza Hamza waxoon naa leen ci bële passé ne soxlawul lu ko ndax am na yeneen solution ndax léeg-léeg ñu xasaf ko léeg-léeg ñu remplacer ko waaw comme yu'minuuna léeg-léeg ñu toxal ko comme mana mana nga gis dégg nga léeg-léeg dañuy noppi comme man ba pare nga soog a amana muy sakt boobu wala ñu dugal kon misli eh, wala ñu no eh, nu mu tuddati def ko tashil eh, comme ajamiyun nga xam ne ajamiyun la dégg nga yooyu yëpp yoon lay ñuy nooy lee xam sa la yu ñuy nooy balaa ñoo continuer njëriñu xam shiddatu ak rixaawatu dégg nga shiddatu xaq la ci maanaam droitu lettre bi la dégg nga xaawat nag mooy mustaxaqu lettre bi mooy buñ ne lii mooy droit am bu ko jëlee lan lan mooy lan moo cay juddoo la cay juddoo mooy xarfu shidda soo koy tudd temps bi ngay tudd xarf wi temps bi ngay tudd xaraf wi dafay gàtt xarfu ri xari xaawa xaqam la la cay juddoo mooy temps bi nga koy tudd dafay gudd su ne xaraf wi xarafu shidda la temps bi ngay prononcer xaraf bi dafay gàtt bu ne xaraf wi xarafu rixaawa la temps bi ngay prononcer xaraf wi dafay gudd xam nga ab a temps bi dafa dafa dafa gàtt léegi nag yeneen euh, xaraf yi nga xam ne xarafu rixaawa la ñëpp soo leen di euh, wax dégg nga temps bi dafay gudd temps bi dafay dafay gudd hmm? iki am gis am temps dafay gudd an euh, waaye euh, yooyu temps bi dafay dafay gudd mais dafay nekk entre gudd ak gàtt ndax yooyu ci diggante ri xaawa lañ nekk ak ak shidda maanaam duñu gàtt waaye duñu gàtt waaye gudd ba ëpp ndax ñoom ci xarafi lin omar yi lañ bokk hmm, waaye bu doon saa par exemple as as dégg nga as de dafay gudd biñ jógee ci ñeent yooyu juróomeel bi ak juróom benn bi nekkoon. salaamaaleykum yaay Hein allo ah kon kon li ma doon wax yëpp euh, maa ngi bi njóobo di euh, intervenir maa ngi tolloon ci sifatul isti'la ma ne isti'la ci luga mooy ak yëkkatiku safaanam mooy istifaal istifaal ci luga mooy suufe Euh, isticla mooy ak yëkkatiku waaye ci xam-xamu tajwid nag mooy yëkkatiku gi làmmiñ bi di yëkkatiku di dem ci xanag euh, teegu gémmiñ gi sooy wax xarafi xoo sood bood ghin too qoof va ah, xussa doxtin qid Eh, isti'la mën nañ koo firee noonu mën nañ koo firee it dégg nga ne mooy eh, jublu gi nga xam ne pressure pressure bi ñuy def pression bi ñuy def ci air bi pression boobu dem gi muy dem ci eh, téegu gémmiñ gi ci kaw sooy wax seeni xaraf dégg booy wax oq nga pressure boobu ngay def ci air bi muy dem ci kaw gémmiñ bi noonu loolu tamit definition istila la istila nag xaq la pour lettre bi xam nga lettre bu nekk day am xaq dayam am istixaaq waaw day am mustaxaq dinañ ko jàng ci kanam maanaam droit wu lettre bi la léegi nag lan mooy cay juddoo tafxiimul xarf mooy lettre bi boo koy tudd da koy duufal tafxiim mooy mooy duufal maanaam duufal googu mooy tax euh, lettre bi di fees gémmiñ gi soo koy wax moo tax am ñoo xam ne tafxiim full mouth lañ koy tuddee full mouth letter dégg nga lettre yii nii di lettre isti'la soo leen di wax da ngay sentir benn fullness ci sa gémmiñ gi ndax duuf gi lettre bi duuf dégg nga tafxiim nag dafa am ay ay martaba dafa am tafxim bu fekkee ne gannaaw dafa dañ ko fa ñuy fatxa lettre bi wala dañ ko damm wala dañ ko dégg nga euh, kasra bu dañ ko sukkoon nag lettre bi dafay topp rek euh, euh, lañ baat ñëw masque gi ñëw gën avant avant sukkoon ba doolu dinañ ci gën a détaillé safaanu isticla mooy istifaal istifaal wax naa léegi mooy ak suufe akuk suppeeku e, ci lakku yaram bu dee ci xam-xamu tajwid nag istifaal mooy suppeeku ak suufe gi làmmiñ bi di suufe ak wàcci e, dégg nga jógee ci xanakul ala bi nga xam ne du ko laal dafay wàcc jëm ci suuf suufee gi làmmiñ bi suufe jógee ci xanakul ala bi mooy téegu gémmiñ bi sooy wax xarafu istifaal xarful istifaal nag mooy bépp lettre ci lettre alphabet boo ci génnee lettre yi istila xussa doxtin xew dégg nga istifaal nag bu nekkee xaqu lettre bi mustaxaqam mooy tarqiqul xarf saa yoo jégee ne euh, xaraf wi xarafu istifaal la rek mooy xaraf boobu dañ koy tarqiq tarqiq mooy safaanu tafxiim léeg-léeg nga dégg nga safaanu tafxim tarqiq mooy soppeeku maanaam soppeeku gi gi gaar lettre bi ba nga xam ne dafay daf boo koy tudd du fees gémmiñ gi loolu la ñuy wax dégg nga tarqiq danañ jàng raa fiñ koy tafximee ak fiñ koy tarqiqee fiñ koy ndawale ak fiñ koy réelee fi waaw fiñ koy kaweelee ak fiñ koy suufeelee wala laam comme bismillahi ak uh, alhamdulillahi wala ak huwa allahu huwa allahu tafxim la hmm? uh-huh. juróom-ñett ak juróom ñaari juróom-ñaareel ba ak juróom-ñetteel ba ci lettre yi nga xam ne dañu am sifaat al addaat mooy melo yu safaano moo doon itbaaq ak infitaax itbaaq euh, mën nga wax ne mooy dëpp wala mooy kole ilsaaq taqal dara kole dara ci dara ci lakku yaram bu dee ci xam-xamu tajwid nag mooy ñaari côté làmmiñ yi kole gi ñuy kawe kole ci teegu dégg nga palewu gémmiñ gi sooy wax xarafi itbaaq ñooy sood bood poo ak zoo dégg nga aus aw aw safaanu itbaaq nag ñu waxoon ne mooy infitaax infitaax mooy ak ubbeeku wala ak tàqaliko ci làkku yaram su dee ci xam-xamu tajwid mooy ñaari weti làmmiñ bi ñaari côté làmmiñ bi tàqalikoo gi ñuy tàqalikoo ak palewu gémmiñ gi ci kaw booy wax xarafi infitaax xarafi ñooy lettre yi des ci lettre alphabet yi yëpp soo génnee xuruful itbaaq juróom-ñeentil ak fukkeel mooy idlaaq ak ismaat idlaaq ci yaaram mooy dégg nga pegg làmmiñ nga làmmiñu cat làmmiñ bu fekkee ne ci làkk ci xam-xamu tajwid nag mooy gaaw tudd gi nga xam ne moo am ci xuruful idlaaq waaw maanaam dañ leen di tuddee ci cati làmmiñ farra min lubbin fa ra mim nun laam ba safaanam mooy ismaat ismaat ci lakk yaram mooy tere bu fekke ne ci xam-xamu tajwid nag mooy tere gi ñuy ki xaraf yi di terewu mën a tabax baat ñoom rek ci làkku yaram bu fekkee baat ba ñeenti xaraf lay am walla juróomi xaraf ndax dafay diis ci làmmiñ dégg de dafay gis ci làmmiñ eh, li nga gis baat mel ni as jit tur la ci wurus wala astuus tur garab la eh, réalité nag mooy gis nga xarafu ismaat ak xarafu idlaaq dégg nga bokkuñu eh, dëgg-dëgg ci xarafu xurufu sifaat yi ñu soxla xam nga lu tax parce que amuñu benn alaaqa ci tudd gi ngay tudd xaraf amuñu benn alaaka ci tudd ngay tudd xaraf waaye xëy na imaam Jazari daf leen di tudd ngir ni nga xamee ne maxaarij yi fukk ak juróom-ñaar mu def sifaat yi fukk ak juróom-ñaar yaa ngi dégg waaye ay melo yu ay lañ yoo xam ne booy jàng luxa dang ko soxla waaye soo di tudd xaraf yi fii dëgg-dëgg ah, seen effet bariwu fi ñaareelu xaaj bi lañ waroon a dugg ci darsu bi weesu muy sifaatu lati la didda laha melo yi nga xam ne amuñu safaan melo yi nga xam ne amuñu safaan melo yooyu juróom-ñaar lañ bu njëkk ba mooy assafiir ñaareel ba mooy alqalqala bu ñetteel ba mooy al liin ñeenteel ba mooy al inxiraaf bu juróomeel ba mooy at takrir ba mooy at tafashi bu ba mooy al istitaala hmm? ñoom la imaam al jazari rahmatullah alayhi di wax ne safiruha ah, zaad naka la ko tuddeeti safiruha saadun wazaayun siinu qalqalatun qutubu jadin walliinu waawun wa yaa'un sukkinaa wanfataxaa qablahumaa walinxiraafu suxixaa fi llaami warraa wa bitakriirin jucil walittafashi shiinu walittafashi shiinu daadan istatil dégg nga de juróom-ñaar yooyu ñooy dégg nga xaraf yi euh, ñooy melow yi nga xam ne amuñu amuñu safaan amuñu safaan waxoon naa ne euh, bépp leetaru arab fokk mu am au moins ñaata melo kan moom mën a dimbale bépp leetaru arab bépp lettre au moins fokk am ñaata melo au moins five macha allah cinq cinq lan mooy li gën a bari ci limu mën am ci melo lettre bu nekk ñaar li gën a bari set waaw ah, oh, li gën a bari yeah the most they can have the least they can have mooy cinq loolu li muy firi mooy xaraf woo gis ci xarafi alphabet bi rek am na cinq ci fukk yi njëkk a tudd su fukk yi nga xam ne am nañu dañu am safaan xaraf bu nekk dana melowoo au moins juróom ca yooya bu ca melowoo benn nag du melowoo safaan ba maanaam xaraf mënta nekk xarafu ismaat ba pare nekk xarafu idlaq waaye mën naa nekk xarafu ismaat ba pare nekk yeneen xaraf ci jaxri yeeg yeneen yi loolu dinañ ci ñëw léegi kon <clears throat> melo yi nga xam ne juróom-ñaar lañu bi ci jëkk mooy safir moom lay wax safir wahaa saadun wa siinu safir mooy lan sofir mu ngi mooy bu fekkee xam nga picc na muy na muy na muy waxee te ñu koy tuddee ñun sab looloy safir hmm? dañ koy tuddee tamit whistling parce que picc na muy waxee dafa mel dafa niroog kuy walis hmm? loolu la sofiir di di di firi ci làkku yaram bu dee ci xam-xamu tajwid nag mooy baat boo xam ne wala vok maanaam voix buy yokk ci euh, kaw baat bi dégg nga di ànd ak xarafi safiir yi maanaam da ngay yëg benn mm, genre walis ci booy wax kàddu ci ci booy wax euh, lettre yooyu le lettre yi nga xam ne nag boo leen di wax dangay mel ni da da ngay am sanwunu walis mooy siin sood ak zaay zaay baax na zaa baax na léegi nag boo koy wax siin wala nga ne as saad wala nga ne as zaay wala nga ne az buñ lay jàngal li nag dañ lay moytuloo nga utiliser sa ñaari tuñ sooy wax soad am na ñoo xam ne da ngay gis ñu naan wala ñu as lu tax parce que dañuy jëfandikoo seen ñaari tuñ yi léeg nag am ku ne fokk nga jëfandikoo ñaari tuñ ndax xarfu safir la dafa am walis boo ko waxee dañ naan la pourquoi doo leen jëfandikoo kon ci siin ak zaay ñoom ñaar ñëpp xarfu safir lañ soo ah os os os waaw seetlu ko ñu gën a bari ci ñu bari ci ñun bu ñuy wax soad fokk ñu dégg wengal tuñu fi boole leen guddal leen fii doo xam nu ñuy nuru wallahi ñu bàyyi ci xel hmm? xëy na mu ñëw tuuti xëy na du wàññi dara waaye nga bàyyi ci lépp luñ la wax ne rek bàyyi ci xel rek xamal ne bàyyi ci xel dafa jafe hmm? safir ñaareel ba ci juróom-ñaar yi amul safaan mooy qalqala qalqala qalqala nag solution la ci leetar yi nga xam ne leetari shiddatu lañu leetaru shiddatu juróom-ñett lañ wax nañu hams mooy solution ci kaaf ak taa dégg wax nañ ne hamza am na solution yu bokkut xasaf ak woyofal ak dégg nga taxaw dang mu desoon juróom xoof xooa ba jiim daal dégg nga mooy écho bi nga xam ne mooy nekk ci euh, euh, dégg nga lettre bi soo koy tudd écho bi nga xam ne mooy nekk ci lettre bi soo koy soo koy tudd loolu mooy loolu mooy qalqala hmm? bu doon wolof dëgg-dëgg la ñuy wax dañuy wax baj-baji baj-baji ah baj baji dégg nga loolu mooy mooy qalqala ci juróomi lettre yi lay nekk waaye nag duñ ca nekk mukk euh, tànk sukkoonuñ leen duñ ca nekk mukk tànk lan sukkoonuñ leen xoof xoo ba jiim daal imaam xal mooy lan baaj euh, baaj ji mooy lan xalxala ma ne ci làkku yaaram mooy baj baji su fekkee nekk ci euh, xam-xamu tajwid la mhm. mooy mooy naka lañ ko waxee mooy euh, how écho écho bi nga xam ne mm-hmm. mooy nekk ci mooy nekk ci baat waaw écho bi ngay def ci ngay def ci kii bi écho bi ngay bi ngay def ci maanaam boo boo koy mu ngi mel ni par exemple boo leen waaye boo prononcé kàddu booy prononcé bi écho bi bi nekk ci kaw lettre bi xam nga daal boo ko sukkoonee dafa dëgër at add déedéet add rek la add add non add ah, add baaxul ndax loolu hamsa la loolu la ah add baaxul add ngay nag boo bëggee def xalqala da nga naan add add yes gis nga add daa de boobu mooy xalq loolooy xalqala loolu mooy xalqala xolqala qalqala baat bi liira googu yaa ngi koy liire ci sa tróot te ci sa làmmeñ nga ko war a liire qalqala qalqala waaw qalqala mooy baj baji baj écho boobu di nekk ci ba qul huwa ah, allahu ahad allahu samad waaw du boobu tabbad tabbat yada abi lahabin wa tab wa b b b loolu mooy xalxala dégg nga boobu di yokk ci sukk baat bi ci lettre bi mooy moom la ñuy wax xalxala xalxala dafa am ay ay degré hmm? mhm. fa am ay degré waaye lan laa wax ni pour mu nekk xalqala il faut mu am lima ma njëkk a wax ne condition wu xalqala mooy lan balaa ma ci degré ah eh, déet mosuma wax shadda nag sukuun laa wax sukuun ok waaw ci baat bu ñu lay nekk xam naa ne watab gi shadda bi ngay wax déedéet sukuun watab mooy sukkoon bi dafa gaar si ndax dañ faa tabax dañ faa taxaw uh-huh. li fa taxaw moo tax mu hmm? léegi nag ma ne qalqala dafa am qalqala bu ndaw ak qalqala bu mag qalqala bu ndaw mooy su fekkee ne lettre bi sukkoon dafa nekk ci digg baat bi lettre bi nekk bi suk dafa nekk ci digg baat bi nga xam ne kenn du ca taxaw kooku qalqala bu bu ndaw la ib like ibtiraa illabtiraa doo wax illabtiraa am na buri bu fe illabtiraa bis nga ba sukkoon boobu ci baaw ibtiraa dafay dafay doo doo qalqala bi doo ci insister parce que taxawuloo léegi qalqala bu mag nag mooy su fekkee Euh, lettre bi dafa sukkoon ba pare nga taxaw ca comme taxaw yi ngay taxaw ci qul huwa allahu wala taxaw yi ngay taxaw ci suratu lahabin wala suratu masadin suratu lahabin wala suratu masad hmm? qul huwa allahu ahad donc qalqala bi ngay taxaw moo gën a foor qalqala bi nga dul taxaw leer na qalqala bu ndaw mooy qalqala boo xam ne sukoon bi nekk ci xarfu qalqala bi bi dégg nga dafa nekk ci digg baat bi taxawuloo qalqala bi xam ne dafa mag mooy bi nga xam ne ngaa taxaw leer na que leer na kubra kubra bokkul ak ahad kubra ibtigaa wajhi rab wajhi wajhi doo wax wajhi wajhi rabbi because jim bi dafa am sukun wajhi rabbihil a'la hmm? du yaa imaam da ngay insister ci accent bi mu strong waaw da da ngay def écho ci accent bi. waaw eh, xaw ma luy insisté ci def écho parce que warul warul warul warul dafa dafay woyofal. Oh. xam nga ib xam nga ib moo gën a strong tax xoolal ib. xam nga boo ko defee sa ñaari ñaari tuñi dañuy dañuy dañuy taq ib. léegi tëju bi muy tëju noonu pour mu woyof ib. waaw ah, ib oh, eba eba ubbi gi nga koy ubbi ndànk noonu moo koy woyofal mm-hmm. parce que mm-hmm. lettre yi xalxala nekk lettre yu strong la ba pare xalxala dafay woyofal lettre bi écho ngay def pour woyof bi lettre bi woyof maanaam fépp foo dégg ñu ne la xarf bi xaraf bi xarafu xalxal rek mu dafa bokk ci xarafu shidda xarfu xorofu shidda ñooy the letters of strength mm-hmm. xalxala solution la pour lettre bi woyof moo tax écho ngay wax quoi maanaam def écho ci accent bi da ngay def écho hmm? ah iba hmm. du noonu wax na ñaar ñetteel bi ñetteel bi mooy lan alliin mooy softness linguistically parlant linguistiquement parlant xamul lu may wax lan la xawma wolof lay xawma softness mooy ak nooy hmm? nooy maanaam lu nooy mooy safaanu lu ñagas xam nga nit léegi yu ñagas koo xam ne tënk ki tënk def yenn liggéey xam nga dafay ñagas tënk bi deful yenn liggéey mooy tënku jigéen ñi dafay nooy ñoom yenn liggéey duñ ko def jigéen ñu njëkk ñi moom daan nañ dëbb yaa ngi dégg mën nañoo imaam mooy ah. lu nooy nooy nga ko wax léger waaw mooy softness hmm? léegi lan mooy lean mooy xaraf wi boo koy génnee ci leetaram da koy génnee ak ak nooy da nga koy génne da koy génne ak ak ak dafay nooy dafay um, dafay du dëgër daal hmm? maanaam mooy xaraf yi nga xam ne soo leen di prononcer doo sentir benn uh, ñëgas hmm? xam am na arab yoo xam ne boo leen di prononcé da ngay sentir ak ñeges waaye xaraf dafa am ci xaraf yi nga xam ne soo leen di di prononcé euh, dooy sentir benn ñeges ñeges xaraf yooyu la ñuy wax xuruful liin xuruful yasin euh, maanaa euh, liin mooy mooy douceur ah douceur xam ngeen douceur waaye nga naan diw nit ki kii dafa il est doux ah wala elle mooy nooy hmm, maanaam lettre yi nga xam ne soo leen di prononcé da nga en douceur loolu mooy nooy loolu nag dégg nga ñaari lettre lañ mooy lettre waaw ak yaa à condition que ñu am sukun ba pare li leen jiitu fataha li leen jiitu nekk fatha du loolu la borom téere bi wax ah ana ana borom téere bi lan la wax uh, safiruha saadun wa zaayun siinu du loolu la wax letters are saad zaa and siin the letters of qalqala are qutbu jad walliin letteri softness ñooy waawun wa yaaun waaw ak yoo xam ne sukkinaa dañ leen a sukkoon wan fataxa te fataxa xablahuma li leen njëkk salu nga xarfi lin sifatu lin dafay nekk ci waaw ak koo xam ne sukkinaa waaw ak yaa yoo xam ne leen wan fataxa te am fataxa xablahuma li leen njëkk alif bi alifu ñaar ay alif bi alif bi way wee way tax ndax wan fataha ak suxiha wan fataha ay wan fataha ma qablahuma maanaam lettre yaa boo ci defee bu amee sukkoon lettre waaw bu amee sukkoon te xarf wi jiitu ya wala mu jiitu waaw ñu fatxa ko booy liir waaw boobu am sukkoon wala yaa googu am sukkoon da nga koy liir en tout en tout nan la mu ngoog dafay dafay dafay soft soo koy liir maliki ha maliki booy jàng fatiha maliki boo gisee ku yaw dee na yawmi diin waaw boobu dafay dafay soft parce que waaw bi dafa am sukkoon dégg jiitu dafa am maliki yawmi ddin doo wax yawmi ddin hmm? loolay mhm. loolay liin hmm? booy jàng bismillahi rahmaani rahim li ilaafi quraysh ilaafihim rixlata alchitaai walsayf falyacbuduu rabba haada albeyt alladi atcamahum min juuc wa aamanahum min xawf xawfin baytin boo jàngee Quraysh di nga gis Quraysh bayt xawf ah xawf doo wax xaw naw xawf bayt hmm, falyacbudu rabba hada albayt alladi hmm, bay doo wax bay bay hmm. lu noonu ñeenteelu xaraf ci xaraf yi nga xam ne amuñu safaan mooy al inxiraaf al inxiraaf maanaam mu ci ci kii bi ci téere bi lu mu wax wal inxiraafu suxixa fi laami warra mu ne linxiraaf ci laam ak raa lay nekk hmm? wol soxiha fi laami wa raa inxiraaf nag ci lakk wolof mooy petu petu maanaa koo xam ne euh, maanaam drifting uh, in English drifting petu xam nga petu petu xam nga tey boo ñëwoon nii ñu nekk ci biir néeg bi yow nga dem nekk ci benn coin bi nii ñu ne gis yow looy pettu ni mooy nga isolé wu. waaw beru beru waaw beru. waaw beru wala petu. petu it wolof la de mooy petu mooy nekk ci pet. waaw ah, la. Hmm? petu it wolof la di. wolof la de petu xam nga pet. waaw xaaral ma gis la ci pet. waaw ah petu waaw petu mu nga yow waa Ndakaaru nga dégg léegi nag lu tax ñu ñu tuddee wax inxiraaf ci. Euh, maanaam mooy jeng daal ah oh, xam nga jeng ah jeng euh, mm-hmm. petu dana firi petu waaye dina firi jeng jeng bi nag moom moom lay soxla fii sax ndax mooy dëppoog kii bi jeng inxiraaf mooy ku maanaam jeng koo maanaam au nga nekk ci digg yoon bi nga nga wàcc yoon bi au lieu nga nekk ci digg néeg bi nga dem ci wet wet gi jeng dañ koy firee inxiraaf léegi nag bu fekkee ci xam-xamu tajwid jëng gi làmmiñ bi di jëng sooy prononcé làm ak moo tax ñu tuddee leen xuruful inxiraaf maanaam làmmiñ wi dafa bokk ci melo laam ak soo ko dee tudd soo leen dee tudd làmmiñ bi dafay jëng xam nga làm ak làmmiñ bi dafay dem ca catu maanaam eh, catu làmmiñ bi dafay hmm. dem ci siiñ ma siiñ siiñu kaw mi hmm. léegi catu làmmiñ bi su demee ci siiñu kaw mi lan mooy xew sa voix bi baat bi ba vocal bi maanaam voix bi yu génn dangay gis dafay dafay dafay petu dafay dafay dafay dafay rëcc dafay bàyyi dafay jóge ci catu làmmiñ bi dem ci ñaari côté yi hmm. oh, maanaam su may wax laam maanaam toujours del del euh, utiliser sukkoon a laam bi sukkoon a raa bi boo bëggee prono boo bëggee pratiquer ci lay gën a leer al ak ar al ak ar soo koy wax al bi nga ne al làmmiñ bi dem gi mu dem ci siiñu kaw mi al mooy tax baat bi au lieu mu nekk lu direct mais dafay petu jógee ci catu làmmiñ wi nga xam ne fa la baat bi fa la lettre bi dëkk dem ci ñaari côté yi mm-hmm. hmm? loolu waaw kay loolu moo tax ñuy tuddee laam ak raa non seulement làmmiñ bi dafay jeng dem ca kaw ca fa ca maxraj ba fële waaye làmmiñ bu demee ca maxraj ba vocal bi baat bi voice bi dafay génn dootul du dem du toog ci maxraj ba xam nga ab boo ne ab donc maxraj bi fi ngay déggee baat bi mooy fi ngay tëjee sa gémmiñ gi fi ngay mm-hmm. tëjee boole ñaari tuñ léegi nag bu dee laam ak raa nag fi nga naan al baat bi wa làmmiñ bi dem na ci fa nga ko war a tuddee waaye baat bi moom rëcc na jeng na petu na jeng dem na ci ñaari côté yi al al ar hmm? ar dégg nga nag waaye nag lan lan la ci teg Adja Ndioba yow bi wal inxiraafu soxaa fi laami war raa lan la ci teg fi laami war raa mi ngi ci écran bi wala gisuloo écran bi ah ok wa bi wa bi takriirin juil uh, uh, juil loolu rek laa soxla ñaari baat yi rek laa soxla wa bi takriirin juil da nga naan wa juil def nañu raa bi takriirin ci takriir takrir raaw moo ko moom takrir mooy mu ngi mel ni takraar takraar mooy lan bamtu bamtu bamtu mooy bamtu déedéet mooy bamtu bamtu xam nga bamtu répété waxaat defaat hmm? Hmm? mooy tak mooy takrir léegi nag <clears throat> lan la bëgg a wax foofu mooy euh, takk réer euh, raam moo ko moom la mooy takk mooy mooy mooy répé mooy répété xam nga raa euh, maanaam takk réer bu ñu waxee baamtu mooy nga def dara defaat ko loolu mooy takk léegi nag lan lañ lañ lañ jublu ci takrir ci lakku ci ci euh, xam-xamu tajwid mooy lox gi làmmiñ wi di lox sooy wax ra mm-hmm. ar waxal ar ar nga ar léegi nag lu tax ñu ñu ne la ko moom dañ la koy wax pour nga bañ koo def xam nga lu tax mënoo koo bañ a def mm-hmm. xaw ma dégg ngeen maam déet maanaam mënoo wax ra te sa làmmiñ bi du du lox te du lox mel ni ku koy mel ni ku koy bamtu léegi nag dañuy bañ nga ëppal ko moo tax ñu tuddal la ko hmm? moom la ñuy wax ne melo la benn melo ngi nii ci melo yi dañ la koy wax pour nga bañ koo def ndax mënta ñàkk soo soo ci bàyyi xel rek di nga ko ëppal nga gis ko naan ar déedéet ar nga ko baamtu ah? boo ne ar rek baamtu nga ko yaa ngi dégg waaye nga bàyyi xelit ne raawu arab bokkul ak raawu anglais parce que arab anglais du ñu wax raa a rek dañu wax a baaxut kenn xamul woon làkk rek làkkul kasaara làkkul anglais hmm, kon raa moom moom takriir boo koy wax dangay mel ni danga koy baamtu ndax làmmiñ wi lox gi muy lox aar juróom mbenneel bi mooy sifatu ah, lan la ci teg aja njoba nañ ndax ñu bayt bi buñ ko buñ ko gisee ci bayt bi dan wali tafashi wali tafashi ah du ci topp wali tafashi lan topp ci tafashi ah kenn waxul moo ko dem li wali tafashi lii lan la wala gisu leen ko wala tafashi wala wala wala écran bi feeñul ci yéen ok ah wala tafashi ah dégguma leen de bu fekkee yéen a ngi koy liir dégguma ko njóob bu fekkee yaa ngi liir sa sa kii bi dafa tëju wala njóoba danga daw ana njóoba Ibrahima Fatima Ibrahima dégguma la nga participer de ay ca na ku ma liiral baat bi topp ci tafashi ma xaar leen ba ngeen liir ko ñu soog a firi sorry um walit tafashi ashinu ashinu ah shiinu walit tafashi ah, shiinu maanaam tafashi shiin moo ko moom waaw mais nañuy eh, eh, bëgguma kenn step out na ñëpp di toog walla wala kuy step out nga yëglu nga oh, boo bindee rek nga xam ne kenn du la kenn ah? ndeysaan loolu farata la nekk <laughs> loolu farata la wala tafashi chiinu maanaam chiin moom moom tafashi maanaam melow tafashi chiina ko moom sifatu tafashi moo tafashi tafashi mooy tasaaro xam ngeen tasaaro tasaaro mooy tafashi hmm? ci ci ci làkku yaar dee ci xam-xamu tajwid nag tafashi mooy ngelaw li air bi tasaaroo ci biir gémmiñ gi sooy tudd xarfu shin noo koy xamee sukkoonal shin nga wax ko ash Hmm? ash booy wax chin da ngay gis ne ngelaw bi dafay tasaaru ci biir gémmiñ gi yëpp léegi loolu moo tax mooy mooy tafashi mooy spreading hmm? tasaaro chin moom lu ci topp ci bayt bi ndax dama parce que après lii nii dama bëgg ñëw bu ñu ñëwee beneen yoon kuñ ne firil baytu sàngam nga firi ko ah lan moo ci topp wala tafashi sinu ah lu topp moom laa hay highlight li ma highlight wala leen waaw dafa am tomb de dafa tomb de oh. hmm? saadun non non dafa lan mooy niroog saad daadun boodan istatil mooy istitaalatu mooy ne ba maanaam istatil guddal baadan baat loolu la hmm, lan mooy na nga baat hmm, istitaala mooy guddal tàlli Eh, lan la jublu ci boad moom moom istitaala maanaam temps bi ngay bi ngay jamono bi ngay bi bi kàddu gi di tudd leetaru boad ka boobu dafay gudd maanaam jamono boobu mooy gën a guddu jamono yi ngay tudd yeneen lettres yi moo tax boad moom moom xarful istitaala léegi nag boo ko bëggee pratiquer da ngay sukkoon bi dangay wax ard ard xam nga ard bokkul ak af bokkul ak al seetlu nga ko bokkul ak az ah da nga ne ard ard dégg nga gudd googu ngay wax baat bi ngay wax lettre bi ngay wax xaraf yi moom la ñuy wax istitaala daad moo ko moom daad hmm? wala board mm-hmm. board essayel boo koy wax nga jël nga use sa edge yi sa pegg bu càmmoñ bi bo bo board ab ab déedéet mm-hmm. bul wax add amul ab dafay gudd rek du ok dafay gudd waaye doo doo doo ko gàttal boo ne abd dafa gàtt te warul am d à la fin abd ad hmm? dégg nga boîte moo gën a gudd ci leetre euh, yi ndax dafa am ñaar yu mu am mooy rixaawa ak istitaala wax naa la rixaawa soo koy wax temps moo gën a gudd booy wax xarfu shidda temps moo gën a gudd booy wax xarfu bayniya léegi nag boîte nag dafa nekk bokk ci xarfu rixaawa xurufu yi ba pare am beneen melo mooy melo istitaala Hmm. léegi nag pour tëj fii wala pour def conclusion wu juróom-ñaar yi ak fukk yële ñu dellowaat ci liñ waxoon ne xaraf woo gis lum néew néew am na juróomi sifa juróomi melo waaye melo ya luñ bari bari duñ romb juróom juróom-ñaar léegi nag soo bëggee xam soo bëggee xàmmee xaraf wi ndax melow wii meloom la wala du meloom nooy def mooy da ngay jël benn xaraf wu nekk nga rombale ko ci melo wu nekk ci melo yi melo yi nga xam ne am nañu safaan par exemple soo xoolee xaraf wi gis ne mi ngi ci melow sangam xamal ne nekkul ci melowu nekkul ci safaanu melo Hmm? maanaam boo xoolee xaraf wi gis ne mi ngi ci melow diw sàngam xamal ne safaanu melow diw sàngam mënta nekk melow même xaraf bi maanaam même xaraf mënul am melo ak contraire u melo bi contraire hmm? Hmm. seetlu maanaam xaraf foog bu nekkee shadid mënta nekk rexu mënta nekk bayni Hmm? soo xoolee xaraf fekk ko ci melow shidda hmm. Hmm, nekk rixu ngaa wax ne rixu la maanaam mënta nekk rixu yees mënul nekk rixu waaw mënta nekk rixu mënta nekk bayne léegi nag benn rixu nekk wala mu nekk bayne léegi ma ñu joxe benn exemple ci xarfu baa xarfu baa xarfu baa suñ ko xoolee ci xuruful hams xuruful hams ñooy yan hams hams mahmusuha kon xurufu hams mooy fa xa tha ha shin xa sod ndax baa ngi foofu kon kon baa xarafu lan la xarfu jahr idan fal ba majhur macha allah kon xool nañ boo ko xool xool nañ baa ci xarfu hams fekkuñ ko fa kon ba xarfu jahr la bu ñu xoolee ba ci xarfu shidda ndax daañ ko fekk wala duñ ko fekk shadiduha lafdu ajib uh-huh. qatin bakat kon baa xarfun uh-huh. shadidun xarfu shidda la fekkee xarfu shidda la mooy kon mënta nekk xarfu rixwa mënta nekk xarfu oh. istifa uh, mënta nekk xarfu bayni kon baa xarfu suñ ko fekkee foofu ñu ne kon baa xarfun shadidun ñu dem ci xuruful isticla ñu xool fa baa <coughs> ayca xuruful isticla ndax baa nga fa yan yan xaraf ñooy xuruful isticla ah xussa daaxutin ah, kon ba nekku fa lan mooy safaanu istiala euh, istifaal kon fa ba yes istifaal yeah you are very very right kon ba gannaaw nekkul ci xuruful istiala dañ ci xamee ba xarfun mustafilun léegi ñu jël baa xool ko ci xuruful itbaaq ndax baa ndax xuruful itbaaq baa ma nga fa baa nekk fa yan xaraf ñooy xurufu itbaaq non non saadun ha loo ci teg saadun daadun taaun yes kon xurufu itbaaq ñeent yi la bu buñ xoolee baa gisuñu ko fa dañuy wax ne baa xarfu lan la infitaax xarfu infitaax la kon idan albaau munfatixun ah, xarfun munfatixun ok ñu del baa seet xool ci xuruful idlaaq ndax fekk nañ ko fa إبلاغ إبلاغ إبلاغ حروف إطلاق أنكي باغا فدي إطلاق أها وفر من لب الحروف المزلقة وفر من لب يعني وفر من لب الحروف المزلقة حروف الإطلاق baa ma nga fa kon ñu xam ne baa mi ngi bokk ci xuruful idlaaq bokkul ci xuruful ismaat du noonu ñu jël baa rombale ko ci xaraf yi nga xam ne amuñu safaan xaraf yi nga xam ne amuñu safaan ñaata lañ maanaam astafirlah saf melo yi nga xam ne amuñu safaan la bëgg wax ñu jël baa rombale ko ci melo yi amul safaan ñaata melo ñooy melo yi amul safaan ñaar. néew. set. set macha allah. lu lay didda laha ñoo tàmbalee fii ba ba ci suuf n'est-ce pas safir mhm. qalqala liin inxiraaf ah takrir ak tafashi ak istitaala tasosier istixaala istixaala istitaala istitaala non istita taala ta istitaala istita ta ta istitaala waaw ist so léegi léegi ci biir juróom-ñaari melo yi ñaata melo ñoo ci am ba ñaa ci melo la ci ba am bu ñu xoolee safir mm. safir ndax gis nañ fa baa mm. kon ñu xam ne baa du xarafu safir qalqala ndax gis nañ fa baa kon baa xarfu qalqala la kon ba léegi juróom yam amoon yokk na ci benn muy ñaata juróom benn boo xoolee ci yeneen yëpp doo fa gis kon baa juróom benn melo la mm-hmm. ngi dégg léegi nag boo jëloon alif boo jëloon ta boo jëloon sa ni ngay nii ngay noonu ngay fexe ba noonu ngay xàmmee lettre bi dégg nga ay meloom xam nga ne lettre bi boo ko rombale ci tel melo nekku ca rek ci melo yu am safaan xamal ne ma ca safaan ba soo demee ci melo yu amul safaan dangay xool juróom-ñaari melo yëpp nga xool ko ci melo wu nekk xool ko ndax mi ngi ci dégg nga qalqala xool ko ndax mi ngi ci safir xool ko ndax dégg nga mi ngi ci takrir xool ko ndax mi ngi ci tafashi xool ko ndax nangam waaye pour ma ma leen ko lettre yëpp benn lettre rek moo ci am juróom-ñaari melo hmm. benn rek nag yeneen yi ci des yëpp cinq la ñuy Hmm? Hmm. benn lettre rek ah naqadi wula xam kaay kaay leen ñu kaay leen kaay leen ñu kaay leen ñu xool ko yan yan lettre ñooy lettre safir siin sod zaay ok yan lettre ñooy lettre qalqala ah waaw ah, ah, xutbu jadin yes waaw ah, waaw baax na yan yan lettre ñooy lettre liin yan lettre ñooy lettre liin waaw yaa waaw yaa good waaw yaa goo xam dañoo sukkoon te lii leen jiitu fatxa mhm. yan lettre ñooy lettre inxiraaf laam ra ah ah laam ra good yan lettre ñooy lettre takrir ra yan yan lettre ñooy lettre tafashi yan lettre ñooy lettre daad mooy lettre lettre istitaala sorry daad daad macha allah tontu ngeen ko fi mu ne nii tontu ngeen ma de xaw ma nag leer seetlu ngeen maam déet waaye tontu ngeen ko de bi ngeen bi ngeen tontoo sama taas <laughs> rek tontu ngeen ko benn lettre rek moo fi am ñaari melo ci juróom-ñaari melo yi ra macha allah macha allah oh, yes ra moo am inxiraaf moo am takrir takrir hmm. yéen moo tax gis nga yeneen lettre yëpp soit cinq rek lañ am wala benn lañ yokk fii mhm. hmm. leer na de alhamdulillah léegi nag yii nag moom dama bëgg ñu mokkal ko waaw ah, bëgg ñu mokkal ko ndem mën naa nekk léegi nag fii nag dañ fi jaar rek jaar bu gaaw après ñu ñu ñu kii baabu tajwid gis nga nag li ko taxoon a jog mi ngi ci soog a ñëw pourtant lii nga doon wax mm. baabu tajwid dégg nga ñaari bunt yim la jàngal yépp ci wit la waaye daf laa dafa njëkkee yooyu pour nga mën a pare mu ñëw na la nag baabu tajwid hmm? wal axdu bi tajwidi xatmun laazimu man lam yu alqurana aathimu wal axdu bi tajwidi jàpp ci tajwid xatmun lu war la lu war gis nga daf ko wax ñaari yoon xatmun laazimun mu bëgg kon nga bàyyi xel ne tajwid lu ama ama am solo lu solo lu tax mu ne man lam yu yusaxix ku jàngul jàng mu wér alquran alquran aathimun mi ngi am bàkkaar ndax ku jàngal alxuraan di ko yàq mu ne bàkkaar la lu tax mu ne li annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilayna wasala li annahu ngir moom alquran bihi ci jàng mu wér jàng moo xam ne dangay respecte respecté dégg nga eh, atte ya al ilahu yàlla anzala la ko wàcce wa hakada naka noonu wasala la yegsee moom alquran minhu tukkee ci yàlla ilayna jëm ci ñun wa huwa tajwid aydan ba tey xilyatu tilaawa mooy caqub njàng ah mooy njàng dégg nga ki gën a bëgg euh, takkaay bu rafet ci ci Amérique mooy sooda mi ngi ci classe bi boo bëggee takk takkaay wu rafet mooy mooy mooy takkaay wu rafet dëgg mu ne tajwid la tak taj maanaam jàng bu fekkoon ne baat la wala yaram la caq ba gën a rafet biñ koy takkal lam ba gën a rafet biñ koy takkal takkaay ba gën a rafet mu ne mooy tajwid wa zinatul adaa'i mooy taarub jooxe wal qiraa akum njàng wa huwa moom tajwid nag boo ko bëggee xam mu ne ictaa'ul xuruufi mooy ja xarafi xaqahaa seen xaq min kulli sifatin ci bépp melo wa mustaxaqahaa ak la mu yelloo xaqam mooy sef mooy mooy melo wa mustaxaqam mooy lay juddoo ca melo wa danañ ci ñëwaat wa raddu kulli waxidin li aslihi wallafdu fi nadirihi ka mithlihi wa raddu kulli waxidin ak delloo bépp benn li aslihi jëm ca cosaan la wa lafdu baat fi nadirihi ci ndendam ka mithlihi comme kemam la rek mukammilan wala mukammalan ñaari baax na mbir moom muy luñ matal min gayri ma takallufin ci lu dul takalluf nag maanaam bu ca bu ca bu ca boole lu ca bokkul bu ca bu ca ëppal bi lut fi ci ñeewante fi nutqi ci tudd bila taassufi wa laysa baynahu nekkul ci diggante tajwid wa bayna tarkihi ak baam maanaam nga mën a jox baat bi lettre bi xaqam wax kon na mu waree dara nekkul sa diggante loolu illa riyadatu mri'in bi fakkihi lu dul dégg nga practice rek practice makes it loolu la bëgg a wax fii loolu la bëgg a wax tajwid mhm. ci euh, xam nga baatu jawd jawda en arabe mooy firi qualité tajwid mhm. mooy jox qualité tajwid ci làkku yaram mooy rafetal yaaram dafay wax hada shay'un jayyid lii affaire bi lii lu rafet la lu baax la mhm. hmm? waaye nag buñ ne ci xam xam-xam bi mooy xaraf wu nekk nga génne ko fa mu génne ànd ak jox ko xàqam ak la mu yelloo xaraf wu nekk nga génne ko fa mu war a génnee ànd ak jox ko xàqam ak la mu yelloo dégg nga xaqi xaraf mooy melow yi nga xam ne mooy melow jëmmam jim ji takkook moom nga xam ne du dëñ mukk lu mel ni shiddatu melow la ci melow baa melow la ci melow hamsa du dëñ mukk lu mel ni rixwatu dégg melow la ci Euh, melow yi xaroofu rixaawa duñ deñ mukk dégg nga yaa rixawatu melo la ci moom du deñ mukk dégg nga mustaxaqam nag lamu mu yelloo nag mooy melo wi nga xam ne mooy juddoo ci yeneen melo ya par exemple buñ ne baat bi isticla meloom la xamal ne isticla dafay jur tafxim buñ ne la istifaal meloom la xamal ne istifaal dafay jur tarqiq ci gàttal daal pour mu simple ci ñun ñëpp mooy tajwid mooy génne xaraf wi ci génnuwaayam ba ci maxrajam fa mu war a génnee ànd ak jox ko xaqam ak la mu yelloo hmm? maanaam xaqam sax mooy la mu yelloo waaye lañ ko yelloowal maanaam lay xaqam di jur la ko jox ko xaqam la muy jur mooy mustaxaq hmm. waaw ku ne nag war naa fexe ba ba mën ko daa nga xam lu atte yi atte tajwid fardu kifaaya la waaye jëfee ko moom booy jàng fexe ba jàng mi dëppook ni xam-xamu tajwid kooku fardu ayn la danga nga gis koo xam ne buy jàng dana respecte règle yëpp waaye boo ko laajee luy tafxim luy nangam du ko xam yaa ngi dégg léegi nag loolu jëfe googu moom fardu fardu ayn la maanaam ci ñëpp la war waaye xam règle yi nag en détail fardu kifaaya la bu ko ñëpp réeree ñëpp am bàkkaar hmm? mm-hmm. du noonu mm-hmm. moo tax mu ne wal axdu bi tajwidi xatmun laazimun jàpp tajwid lu warla la lam yu saxe ndax ku wéralul jàngam alquran asimun aji bàkkaaru la mm-hmm. hmm? ndax noonu la ko yàlla wàccee mu ne li annahu bihi ilahu anzala wa hakada min ilayna wasala ñii la noonu la ko yàlla wàccee te noonu la yegsee ci ñun wa huwa aydan xilyatu tilawa mooy takkaayu njàng wa zinatul adaay wal qiraa mooy taaru jooxe akum njàng lan moo lan la mu ne wa huwa ictaau lxurufi xaqaha min kulli sifatin wa mustaxaqaha mooy xaraf wu ne nga jox ko xaqam ak mustaxaqam wa raddu kulli waxidin li aslihi mooy lan wa raddu kulli waxidin raddu kulli waxidin li aslihi way wilaay xool ndax baax na wax baax na wa lafdu fi nadirihi ka mislihi dégg nga maanaam lu ne xaraf wu nekk rek nga génnee ko ca génnukaayam ba mooy lu ne nga delloo ko ca cosaanam wa lafdu fi nadirihi ka mislihi mooy lan booy jàng fexeel ba jàng ma nooseew jàng ma organisé xam nga léeg-léeg nga am madd munfasil mun nga ko def xarakatayn mën nga ko def arba dégg nga arba xarakaat madd mun munfasil mooy lan kan moom mën a jox misaalu madd munfasil xam nga madd munfasil mën nga ko def ñaari masque comme mën nga ko def ñeenti masque léegi nag soo commencé madd munfasil nga def ko ñaari mask njàng mi yëpp na madd munfasil nekk ñaari masque bul jàng madd mun fasil fii ñaari masque jàng madd mun fasil fële dégg nga euh, ñeenti mask dafay tax njàng mi du